réew mi dem ci loxo benn parti politique accusation yu grotesque yooyu enfin yu yu rëy noonu bu ñu koy yëkkati di ko teg te daam boo jox ko léegi sénégalais yi pour nga gëm leen ko dana euh, dina jafe mais ñi koy teg lan lañ ci jublu laa bëgg a xam. mais mais Moustapha euh, Moustapha li ñu si jublu lii la cest dire ñu waxtaanee ko ñu waxtaanee ko ñu bañ a nekk ci essentiel nekk ci ay accessoires rek yu ni mel parce que en fait euh, dañu changer mission presse sénégalaise dugal ko ci benn entreprise de crétinisation. Mhm. Euh, tey jii au lieu ñu waxtaanee ci budget bi nga xamante ni ñu ngi ñuy wax waxu sept mille milliards. Mhm. ak débat yi nga xamante ni député yëkkati na ko fa. et loolu moom loolu moo c'est malheureux mhm. c'est-à-dire am na ay débats yu yu Euh, surtout waa opposition bi doon euh, yëg tey amendement yu bëri doon interrogation yu dul yu dul jeex. Mhm. mais euh, te presse bi nga fa woon taxaw. malheureusement amul benn yoon bu ñu ko titré def ko à la une. am benn député boo xamante ni yëg na ay accusation teg ko ci kaw nit sachant que euh, comme lu Issa wax xam na ni dafa am benn immunité mhm. euh, li mu fay wax wala li mu fay voté kenn mënu ko ci topp mu ni damay wax lu ma neex mhm. wax lu ko neex mu xëy suba loolu retrouvé wu la une des des des journaux moo tax ma ni dañ nekk ci benn entreprise de crétinisation mhm. yóbbutuñu sénégalais ci loo xamante am na njëriñ mais dañ leen di yóbbu ci loo xamante ni voilà pour distraire am loo xamante ni ñu ngi koy dégg fan yii yëpp euh, ñuy naan du accepter wala jóge feneen ñëw ci biir réew mi di naan dañuy instaurer le chaos. mais wax jooju foog ñu jëmmal ko. wax na ko depuis depuis des mois. ba mu koy mujj wax yàggul mu ni chaos du ko accepter boo àndee force intérieure extérieure tamit boo ñëwee fii di nga ñu fekk nañ essayer. Mhm. mais wax jooju foog ñu jëmmal ko pour ñu jëmmal ko noonu foog ñu jëm ko wutal forme. foog ñu dem indi frères musulmans caricaturé comme benn organisation islamiste. Mhm. mais frères musulmans Euh, lu mu tudd waa waa waa Israël euh, jàpp si ba ba jëlee ko fu mu nekk. Mhm. mais Morsi jugewul frère musulman. absolument lan moo bon ci frère musulman ak frère musulman kañ lañ nekk ay Qatari. vraiment. Égypte la Égypte la jógee woon Égypte la jógee mi organisation boo xamante ni politique la ñoom vision bu ñu am mooy par exemple Mauritanie ni ñuy doxalee seen réew ñoom dañu jàpp ni état bu islamique moom moo war am biir Égypte. te am nañ ci droit am nañ ci droit. te ba ñu defee seen révolution Égypte. ban année 2011 xaw ma 2000 ban année la sax je 2011. Morsi moo falu. waay moo falu ñoom ñoo ko fal. laata ñu koy jaay doole di ko génne ci pouvoir bi mu nekk. di ko mhm. tëj ci kaso yi. Mhm. parce que tout simplement Égypte da ngay xam ni dafa am frontière ak Israël ak Palestine. jàpp nañu ni comme moom dafa am ay vision boo xamante ni dafa jege euh, vision jullit la da koy dafay dafay dafay dafay dafay. Euh, appliquer un état islamique. absolument day et puis sax dafay indi soutien Palestine. Hmm. blocage bi nga xamante ni dañ ko bëgg a def ci canal bi nga xamante dafay jaar Égypte di génn biir Palestine. mais loolu bu nekkoon président day wéy parce que boobu du nangu blocus bi. Hmm. ñu jëlee ko foofu indi fa koo xamante ni kenn xamul lu mu doon mooy ki toogoon fii bërki dem doon saaga africain. loolu histoire bu récente la donc bu ñu ñëwee dañuy naan ay frères musulmans mel ni frères musulmans eh, Qatar nañu nekk ak Dubaï cest dafa am ay amalgame yoo xamante ñoom ñoo ko def te je pense que ni ñun en fait ñun ñoo war refuser ce genre de débat. gis nga jamono ji fu toll. Moustapha sénégalais yi mooy li li li Dame Mbodj wax nii sénégalais yi mat nañ mat yoo xamante ni am na wax yoo xamante boo koy wax dañu leen naan kii ay waxu dof lay wax. parce que li bu jaaree ci avion ci ay manette lay ne. Hmm, yu bëree bëri. yu bëree bëri ci ay saag lay ne. ban banque ko viré. bu dee jaaree ci banque 10 millions sax mënut a dugg ci Sénégal mënut a dugg extérieur dugg Sénégal. Hmm. te du léegi boo ñëwee di verser 5 millions dañ la laaj. dañ lay laaj effectivement effectivement léegi loolu bu ñu mënee nekk euh, quand même dañuy poser ay questions wala ci ay gàll la jaar sax am na yoo xamante ne vraiment moo tax sénégalais dañu mat te duñu nangu ñu leen di dugal ci ay débats yoo xam ne débats yu la gis nga jamono jii ni mhm. ñoom yaakaar naa ni dañu nekk en fait xam nañu ni que ñàkk nañu quoi jéem nañu lu ne ci Ousmane Sonko moo tax nag man côté boobu kese moom moo ma ciy metti parce que presse bi bu ñu koy utiliser mhm. euh, quand même ñuy dem di def ay une di commencer di diaboliser loolu dafa dafa nekk loo xamante ne waruñu si woon waruñu si woon dugg mhm. benn nit mais aussi jamono ji nga xam ne moom la Ousmane Sonko doon accuser euh, le le gars de Louga euh, Mamour Diallo Mamour Diallo c'était le même trait non que du peut comme yooyu ñu defoon nga xam ne finalement sax am joxuñu ko suite judiciaire non non ah, sauf que euh, Mamour Diallo li mu wax OFNAC hmm. da ko confirmé ni ko ah, yow 94 ngay wax c'est plus de 94 milliards non xam nga Ousmane Sonko ñëw lig tay accusation teg moom dafa ñëw indi loo xamante ni lu leer la mu ni lii nii ay fee la indi ay nit indi ay indi léppam indi voilà dem porter plainte indi texte sur la place publique loolu presse bi amoon na possibilité de def recoupement xool ndëgam li muy wax nii am na loo xamante ni lu si lu si lu si dëng la parce que la Pape Makhtar li loolu doy waar ci wax ji cest à li wax ji bari bari bari liñ ci mën a wax ne fa la wax ji jóge c'est juste un article de de presse de rien du tout effectivement te li nga préciser sànq moom moo jar a préciser. ñoom dañu dañu accuser là où l'article en question. na na n'accuse personne. ñoom ñi ngi cité benn source ni source bi dafa accuser alors que source bi ci boppam nee na dee naan nee na. diw nee diw nee diw nee waxul diw sax daf ne am na ku ne. waaw am na ku di voilà diplomate marocain. parce que diw nee mooy Pape Makhtar nee na. a identifier Pape Makhtar dem fekki ko. merci voilà. c'est-à-dire aucune précision ñu ne article boobu nday tey jii mooy seen source ñu jëlaat ñaari personne mhm. parce que li ñuy wax nii c'est-à-dire mooy li ma wax rek euh, c'est savamment entretenu quand parce que dañuy jël ay ñoo xamante ni dañuy am benn genre immunité euh, au niveau euh, au vu de la loi ba mhm. mënuñu leen topp bu ñu mhm. jëlee journaliste nga tudd Moustapha Diop nga bokk peut-être nga jege Macky Sall mais loo neex wax lan nañ lay wax doo dévoiler say sources ñaar ñooñ toog ci plateau wax bu leen neex wax lu bu ñu leen waxee ñu ne noonu dama am samay sources te du ko dévoiler mhm. kañ lañ lay opposé ñàkk dévoiler say sources yow nekkee ci opposition wala ñu jàpp ni Walfadjri nga nekk boobu nag dañ lay naan par force di wax say sources mais tant que yaa ngi nekk ci pouvoir bi mais mën nga wax lu la neex te dara du la fekk de la même façon aussi noonu la député bi mën a taxaw foofu wax lu ko neex parce que kooku